مصطفى إذ جاء يمطار من تمر المدينة قل بعيره بتاعه المختار من كرم loolu daleen ci dalee ci seen kaw gaa ñi nga xam ne bu natt yooyu dalee ci seen kaw. dara du doon seen wax lu dul kontaan nañ ci lu neex yàlla na ko def. day kontaan ndax yàlla ca la ñu bàyyi ko te ca la ñuy dellu. ndax nun yàlla ci yow la bàyyi ko ci yow la ñuy dellu si. yàlla ne ñi def loolu. yàlla ne yonent bi nag bu boobaa ba natt yi dal. danaa wax loolee. danaa sotti waa muy xéewal ak yërmande bu bàyyi ko ci man te du am benn intermédiaire jëm ci ñoom. danaa sotti waa muy xéewal ak yërmande te amul jox joxlante maa koy sotti ci seen kaw rek ba ñu ne gërëf nag sant yàlla. te tam ko bëgg koo roy te nekk ci ñëpp royal ci ñooñu. te nag yàlla ne ku bëgg ñëw koo roy. ku nekk ci njub royal ñooñee kon nag nattu bi wàcc ci suñu kaw yal na fi fekk liimaan yu ko dékku kon nee nattu bi wàcc ci suñu kaw yal na fi fekk ngëm gu ko dékku ba yàlla boole ñu ci ña nga xam ne humul muhtaduuna ba yàlla boole ñu ci gaañu gindeeku ñooñu tey gindee yii yëpp nay woyaf ci yéen nee nattu yi rek nan ko woyofal amul solo Seydil Hadji Malick dafa wax ca Tiwaawan Baye Ngouda. Seydil Hadji Malick dafa wax ca Tiwaawan ak góor bu ñuy wax Baye Ngouda Mbuub. ne ko Mamadou man de dégg na coow yi bari na lool ndax njéeréer yi. ne ko mu Mamadou man de dama dégg ni njéeréer yi yàlla yebal tax na coow yu bari ci nit ñi. ndax njéréer yi ñoo ëpp yàlla doole. mu ndax njéeréer ëpp doole. wala njéeréer yi mën nañu lekk li yàlla sàkk ba mu jeex ba yàlla amatul dara. wala njéeréer mën nañoo li lekk li yàlla sàkk ba mu jeex yàlla dootu dese dara. ñu ne déedéet déedéet déedéet njéeréer ko. mu ne kon man tam mën lëf ci dama koy teg ci béréb. xaaji maa man day war lu lëf ci dama koy teg ci béréb. li ma leen di warlul. li ma leen di warlul mooy lan. kan ci yéen moo mën a jot taxaw fii ne man ma xaaji maa yi man de dana dund ren ba déwén kan ci yéen moo mën a jóg ne ma xaaji Malick man danaa dund ba déwén. ku ko ci def rek. kenn mënu koo warlu. danaa jóg man itam ne lay yàlla dana la gàddul sa dund rek ba déwén. yàlla dana la gàddul sa dund ba déwén. ñu ne ko kenn mënu ko ci. ñu ne ko kenn mënu laa warlu loolu de. mu ne leen nag kon ki man te xam te am sañ-sañ te mën a def nañ ko bàyyi ak suñu bopp. kon nag ki man te xam te am sañ-sañ moo mën a def nañ ko bàyyi mu def. foofu yi nañ ci dellu ci suñu xel. foofu yi nañ ci dellu ci suñu xel. gouvernement bee. nguur geeg. sëriñ see. sëriñ seeg. suñu daje woon di guddeeg bëccëg. ñoom ñépp buñ daje woon guddeeg bëccëg itam. bëggal ñu loo xam ne yàlla àndu ca du mën a sotti. bëggal ñu lu yàlla àndul itam loola du sotti. lu ñu yàlla bëggal te ñoom neexu leen it loola rek kay am. lu ñu yàlla bëggal doonte neexu leen it loola rek kay am. su yonti wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubinin wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim wa huwa alazizu alxakim dalika fadlu llahi yutihi man yashaau wallahu dulfadli alazim mathalu alladina xummilu altawrata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 ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون